ko ñu xaw a réaliste xaw a pragmatique si li nga xam ni ñu naan bu ndox tuuroo an mbaax moo des hmm. fi ñu toll lan mooy solution bi maintenant parce que je pense que suñu ay suñu plateau médicaux yeeg yooyu oui y a beaucoup de problème mais lan la ñu jànkoonteel tey war ko régler parce que amuñu temps wu fii ak six mois yor benn bateau magique ne nii hôpitaux yi sax comme kii c'est pas possible hmm. le monde malade

waaye man ma wax li ma benn wax bi ma wax sañ waaye <laughs> ma eggali. boo nee boo nee il faut être réaliste ça veut dire que je ne le suis pas non dama ne non waxuma j'ai pas dit Charles Faye il faut être réaliste sax dama ne non mais waxuma Charles ma tudd Charles di Charles grand doo dem ndànk rek <laughs> ndànk ndànk non li ma bëgg a wax mooy aujourd'hui li ñu war a li ñu war a li ñu war a wax moom mooy fi ñu toll tey jii nii ah mbir mi toll na foo xam ne mënatul xaar te c'est pas des ay solution de ay Afrique dafa war a avancer ak yooyu yooyu yëpp dëgg la mais lan la ñu jànkoonteel tey ak lan la ñu mën a jànkoonteel fii ak weer wala ñaari weer mu nekk lu luy dëgg ñu war ñu indiquer ci côté boobu ban prise de conscience boo xam ne moo fi war a nekk ci Sénégal yëpp ñu comprendre que nii lii moo fi ne ah lii mooy solution bi nan lañ ci mën a génne parce que pour man leneen lu ñu fi wax dañ koy conjuguer au futur mais futur boobu dafa tey la ñu soxla ñun on a besoin du présent fii ak par exemple pour man li ñu war a wax sénégalais yi mooy tey jii ni on est au mois d'août ah, fii ak mois de septembre waa mois d'octobre man je me rappelle euh, pour ne pas dagg li ma doon wax sax bi ñu fi njëkk wax waxi coronavirus ah am na Samba Ndiaye mi sol lu wert lii ah euh, moom mii c'est-à-dire que boo ne woon ñaari malade ak ñetti malade sax gars ne la yow da nga pessimiste nga dugg na fii génn ay fois bi ma fi wax waxu mi mille mille bu fi ba suñu ci amee mille cas moom mii mooy moo njëkk jóg ne ma tee malade te dañuy am 1000 ci benn jour dëgg la loolooy réalité donc aujourd'hui je pense ni ñu war a bëgg xam dëggantaan mooy que lan mooy prévision yi fii ak weer ak fii ak ñaari weer par rapport ak li fi nekk ci vaccin par rapport ak li fi nekk ci ci ay ay ay lalu hôpital par rapport ak nii feebar bi di demee parce que loo daan dégg mi ngi dal Chine dégg daal France dégg États-Unis dal kii dal na benn waay ju nekk Dakar ngay dégg ni dal na sa waay ji nga xam ne yéen a nekkoon démb ak koo nekkaloon bërki dem muy ci télé beeg muy ci rajo beeg muy fépp képp ku am liggéeykaay képp kuy liggéey fend fii Sénégal fii quatre-vingt-dix pour cent am na kenn ku fa tëdd tey jii nii donc c'est là c'est pas c'est pas du demain donc pour man bu ñu xawee jël suñu énergie bañ ko dépenser ci ay ay futur Afrique ak yooyu te ñu régler suñu problème bi nga xam ne moom la ñu jànkoonteel te réaliste lan la ñu mën a def pour génn si tey jii nii am na question ah, c'est politique wala c'est médical. non non non non non dama ne dama ne tey jii nii. Hmm. waxuma xam nga tey jii ñun ñii ñëpp il y a deux ans trois ans mën nañ fi toog nii suñu hôpitaux yi dañ ko war a defar suñu mais tey jii li ñu jànkoonteel fii ak décembre lan la ñu mën a def ba nga xam ne moins de sénégalais moins vont mourir. waaw hmm. oh, mais en fait pour man pour man te loolu. lépp lu ñu parce que gars yi tam bi ngeen di wax dañ leen dégg parce que loolu lépp lu ñu mën a def. Hmm. tey jii nii moom mooy ko nañ ko envisager maintenant parce que. ci urgence la ñu nekk. oui. ñi ngi wër ay vaccin nañ dem nañ vacciné wu le grand problème mooy amaguñu un dixième de li ñu soxla. amaguñ ko pour nga am neuf millions wala quatorze millions. di disons cinq millions de vaccins ñaata mois lay jël. il faut que information boobu ñun sénégalais ñu xam ko. man mi nga xam ne maa yor sama kër ma xam ko keneen ki nga xam ne deuxième dose am ñëwul mu xam ko est-ce que bu de de AstraZeneca ñëwee. ñi amoon première dose ñooy daw jëli ko wala ñi am jotal woon am sax mën a am tuuti du dëgg parce que tey jii nii bu benn kër ne woon ndox amu fa benn bouteille ndox nekk fa borom kër gi du jël ndox mi yëpp naan ko da koy xel li ci ay kaas ku ne naan nan waxante dëgg dégg soyons réalistes c'est-à-dire que man aujourd'hui damay jël tout sama sama ay ay idée ak sama ay yooyu yëpp ma relé ma relégué ko au second plan. Mhm. ma ne tey jii nan la ñu mën a def pour tey génn si fii ak deux mois parce que boo xool dëkku tubaab yeeg ay ñoom bu ñuy def prévision dañ koy dañ koy def ci un mois bi di ñëw deux mois qu'est-ce qui risque d'arriver parce que foofu la mbir mi toll sumu waay mhm. tey jii nii foofu la c'est-à-dire ñun ñii di def émission yi sax tu da nga koy sentir tu sens que l'énergie n'est plus là nit ñi aussi ban seen seen force fan lay yem parce que nit ñi sonn nañ mhm. les gens psychologiquement sont lessivés sont fatigués financièrement ils sont fatigués. te loolu yëpp. booba pour mën a ne ba bi ngay toog du yaa ngi lijjanti kaas sa téléphone. voilà exactement man ba bi ñuy toog ah. bi ñu mën naan 5 secondes 4 secondes maa ngi lijjanti. kaas foofu lañ toll parce que <laughs> voilà euh, que xam <laughs> si suñu. si suñu voilà parce que si suñu suñu. on dans ça. waaw si suñu dëkk yi dafa am loo xam ne ñun sénégalais ñun ñëpp nag man en premier ñun. cest dire que dara day ñëw ba ne këtt ni jot ni te duñu réaliser que mi ngi fii c'est-à-dire que dis lii mooy réalité bi tey mooy que aujourd'hui quest que qui risque d'arriver au Sénégalais bu ñu amul assez de vaccin fii ak un mois deux mois je pense que loolu nit ñi war a xam loolu la nit ñi bëgg dégg parce que Charles affaire bi saa yoo yeewoo mu gën la jege ci yow yaa ngi nii ne sama soxna yaa ko wax sama soxna dafa am xam nga loolu quand même ça dire que ki ngay partager néeg bi lal bi moom dafa am Covid ça veut dire que le truc donc aujourd'hui il faut que ñu quand même énergie yooyu ñu war a nar jël yëpp di di projeter ci avenir ak yooyu nañ leen jël énergie boobu yëpp pour man boole ko et critique c'est bien mais pour man tey jii nii li am solo mooy que luy construire luy boole énergie yooyu pour que ñu génn ki manœuvrer ba génn ki situation bi tey moom moo ëppi solo c'est ça parce que nii ñun suñu réew yi Charles foofu lay tëjee suñu réew yi ndegam ba feebar amulee la ñu yorul dara asumaak tey ña la daan jox ñoo la ëppi problème foofu hmm. est-ce que tey jii nii hmm. su ma xoolee Paris Saint-Germain war a jouer suba comme on va parler de foot ah ma xool que ni daaw amuloon public tey mu am public dama bëgg a xam lan moo tax public am bu dee ñàkk moo xam moo tax public am nañ jël suñu énergie yëpp suñu force yëpp dem wut ay ñàkk ñu ñàkku hmm. parce que leneen luñ fi wax gars yi après plateau yeeg yooyu ah li il faut nañu nañu faj nit ñi tey jii nii nii nii te lool moo am solo te prise de conscience boobu pour tëj benn daf ci am kenn daf ci am part de responsable amul kenn ku nekk ci àddina bi te amoo assez d'information ci coronavirus nan waxante dëgg tey gi nii ñun ñëpp dañuy communiquer on on a dañu communiquer ba ba tas ba tas nit ñi aussi nañu jël seen ay responsabilité te loolooy dëgg c'est hmm. kenn am na benn moment nee naa la gis nga feebar bi billaahi waxoon naa ko fi discipline individuelle hmm. ah bi ngay am boo seetee ñi ciy gën a génn mooy dëkk yi nga xam ne ñoo gën a discipline du course de vitesse course de fond la moo tax may laajte jusqu'à quand bu dee dañu nar a xeex nii fii ak trois ans fu ñu jëm xam nga donc aujourd'hui bu ñu naree ne neuf neuf neuf neuf millions de de de vaccins bëgg am mais il faut bu dee dans un an et demi la ko nar am mais dëkk réew mi jeex di hmm. xam nga li ma la bëgg wax loolu c'est des questions donc nañ essayons de régler ces problèmes là ponctuels tey tey tey tey nan la ñu mën a def pour que fii ak deux mois moins de sénégalais de euh, bañ a de moom moo am solo mm-hmm. leneen lu ñu fi wax rek pour man c'est quand même voilà Charles pour une minute avant ñu dellu ci directeur DAF wax ci coronavirus